am ko doon waxtaan ak soxnaam ñu waxtaan mu ni ko man daal namm naa sama famille sama papa sama yaay samay frère samay sœur te gëj naa leen invité gëj nañ fi nag te loolu gënul jaaduwul rafetul te su ma sañoon nag dinaa leen invité deme ñu ñëw añ si fii yéen doonoo ak ñun jabar ji soofantal ko ni ko waaw ba suba jàmm rek comme 7 du matin nag la jëkkër ji daan xëy 7 du matin mu xëy dem liggéeyi bon treize heures la daan faral di wàcc xanaa kon li jaadu woon mooy mu woote téléphone avant muy ñëw mais mu bàyyi ba quatorze heures mu ñëw bi mu ñëwee mu ne jabar ji alors foo toll loo togg lu manqué jabar ji ni ko togg ma de mu ni ko ah togguloo lu tax togguloo mun ko dama xam ni sa famille du ñu doxandeem ci kër gi tey du nu jàmbur ci kër gi moo tax man rek naa bàyyi bu ñëwee lu ñu fi fekk rek ñu bokk ak ñoom jëkkër ji mer ni ko mais kon lu tere woon nga wax ma ko biig ma fanaanoo ko xam nu may def d'ici une heure de temps dinañ ñëw léegi bu ñëwee naka laay def jabar ñi ni ko loolu daal jafewul compliqué wul amul lenn lu ci lu ci difficile xam nga nooy def woo leen téléphone nga jox leen ngànt mënuloo ko nga bàyyi leen ñu ñëw su ñëwee lu ñu fi fekk rek ñu bokk ak ñoom jëkk ji xool xool amul benn solution bu mu def mu daal di mer génn kër gi bi mu génnee kër gi dem à peu ay minutes yu néew rek am ku fëgg bi mu fëggee ndaw si dem di ubbi ndekete famille ndaw si ci boppam la papam yaayam ay frère ak ay sœur am comme na ko jëkkër ja waxe woon léegi ñu dugg si papa ji ñëw ni ko alors ana diw mu ni ko diw dafa génn mu ni ko ah, kon de xanaa sorewul ndax moom de nu woo téléphone nit ñu daf ñoo namm ndax gëj nañ fi moo taxoon mu invité ñu sax tey pour ñu ñëw yenn si fi ak moom ah jabar ji bouleversé wu complètement ndax wóor na ko ni li fi ne ci ñam moom xalaatu koo jox famille boppam mu daal di leen dalal ñu toog mu jàll ci biir jël téléphone am woo jëkkër ji ni ko lu tere woon nga wax ma ni ma sama famille ñoo fiy ñëw jëkkër ji ni ko dama xam ni rek sa famille ak sama famille benn la amul lenn lu leen wuutale waaw loolu rek la waaw mun ko waa kon xanaa kon jëkkër ji noppiloon na ko tëj na gémmiñam mun ko waa kon léegi jàllal marché soo jàllee marché nga jënd foofu dara indi ma toggal leen ko xanaa loolu mooy yabaate jëkk ji ni ko mais nag malheureusement dama sori te damay guddee léegi ñam woo fi des nga xam ne moom nga bëggoon a toggal sama famille te sama famille ñëwuñu sa famille ñoo ñëw jël ko nga jox leen ko ndax sa famille kat duñu jàmbur ci kër gi te duñu gan ci kër gi ndax sax nga man fa jaare respecté sama famille samay papa samay yaay ak samay frère ak samay sœur kon boog yéen couple yi ngeen jël ko boole ko ci seen la leçon ndax dana leen dimbali merci à plus